jërëjëf ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu sallam di gërëm suñuy ñaari woy waajur vraiment cérémonie tey jii eh, dafa am euh, cachet particulier lan moo tax mu wax loolu mooy xam nga dañu ne ci jamono joo xamante ne jamonoy koor la yàlla dogal kër Moussa ku ko xam xam ne y a une forte communauté chrétienne boo xam ne moo fi nekk ndax ku wax kër Moussa rek wax Euh, les mois. Euh, ci loolu bi mu aussi ñu gis nous sommes à terme nous ñu ngi milieu bi Nous dogalu ñu né nous nak yi nga ko jox ko def mais séparément ñu yëkëti jox ko suñu mbokk chrétiens yi yëkëti leneen aussi jox les musulmans mais comme dafa tassé ñu né nañ ko cérémonie ce qui va nous permettre vraiment ñëpp mëno dajalo

des couches c'est bien organisé parce que les chefs de village il y a une association les imams il y a une association nos amis chrétiens aussi Il y a des associations c'est bien organisé mais nous, nga des gens ñu population Nous avons des chefs chef de village bon du des ay Nous euh, sommes laaj aussi ñu ngi aussi jagleen lañ leen ndimbal loo xamante ne chaque jour que Dieu fait depuis le début de Ramadan ñu ngi koy jëflante ak ñoom ndax dañu di ñoo xamante ne xëy na comme ni ma ko waxee sànq ay néew ju doole lañu bëgguñu leen dajale vraiment di leen sonal mais war na leen mën a fekk fa ñu nekk ñu jox leen dimbal te loolu ñu ngi koy def guddi ak bëccëg voilà. waaw ça va être très difficile dans la mesure où euh, daaw ma bëgg sax ñuy tudd li nga xam ne moom la ñuy joxe mais comme daf ci am parti bo xamné parti commune bi la commune ko wax commune euh, yow mi fi nek gérer ko donc bon da nga war rendre compte li nga xamante ne moom la def li nga xamné def nañu ko jëme ko ci suukar jëme ko ci yi muy àndal ak yépp nek na une valeur de trois millions cinq cent mooy mais loolu nag euh, non comprise yi nga xamné wax na ko sank nga xamné war nañ ko defal imam yi chef de village yi ak yi nga xamné personnellement dinañ koy def ci walu social te it bëgguñu mu nekk loo xamante ne luy lu ñuy feeñal ci biti la parce que nit ki nga xamante ne xëy na am na jafe-jafe ci biir këram nga boo ko dimbali boo ko indi ci mbooloo naan maa ngi lay dimbali kooku amul sens voilà. voilà monsieur le maire bu ñuy ñëw fii ci euh, sa commune. Mhm. te ñu wax ci lu jëm ci wàllu impact yi jëm ci wàllu aéroport bi. bu mhm. te ginnaaw projet yu bëri na nañ ko fi. Mhm. fan ngeen ci toll ci impact yooyu ak li nga xamante ne jox nañ ko waaw je pense que impact yi tey. Euh, peut-être pas euh, le chiffre exact mais on nañu wax à plus de 80% réglé et puis on est en train nous aussi, de faire aussi recensement pour que nous puissions nous régler nous puissions ko régler et définitivement et pour bientôt Inch'Allah, il dina un euh, souvenir comme on le dit dafay nekk un mauvais souvenir mais on va éponger ce que nous avons fait, nous fi ci ay impacté et qui ne war nañ

C'est euh, ce Même si euh, nous entouré, parfois, ils ont des sorties ou des déclarations. Je ne pas. Parce que si je le fais, je fais que vraiment un euh, genre de santage. Si je ne sais pas, la commune dans le département, euh, de commune Parce qu'une commune qui a plus de 25 000 électeurs, yaakaar naa nekkul commune bu ndaw c'est pas une commune à négliger donc bon euh, jàpp naa ne euh, ki nga xamante ne tey moom lañ fi toogal le président Macky Sall kenn gënu koo xam situation bi nekk ci biir commune Kër Moussa xam naa ne ni mu maîtriser këram noonu la ko maîtriser parce que xam nañ ko bu baax donc bon li nga xamante ne daal ñun moom la ñu nekkee mooy liggéey waxtu wu ci nekk guddi ak bëccëg population bi moo ñu ñor ñu liggéeyal leen moment venu bu fekkente ne dem nañu ba war soxlawaat population bi dugg ci ñoom laaj leen li ñu leen di laaj bu dee lu jëm ci ñun ñu téye ko bu dee lu jëm feneen aussi ñu teg ko ci loxoom mais en tout cas fas yéene nañu toujours euh, ñu liggéey ba nga xamante ne euh, suñu commune nañ ko daan tege